asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football TV yi nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne def leen vidéo tàkk-tàkk laa gis ay bomb laa gis ay fusil laa gis loolu mooy lan Ismaïla Sarr Sadio Mané Iliman Ndiaye trio bi est-ce que nekkul trio bi xamante ne moo ñu war a andiwaat Coupe d'Afrique loolu question la ci commentaire wax leen ma ndax trio boobu dañ ko war a teg am déet wala dañu war a jël kii di Iliman Ndiaye boole ak beneen attaquant en commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis loolu foog ma andil leen que gis ngeen ne Iliman temps la jël footballatul laa la wax dugalatul bii passe la jël quoi du côté dribble xamone nañ li mu mën eh, du côté passe décisive dafa améliorer, bu baax a baax baax ba tey nag attentes yi concernant Ismaël Sarr ñoo ngi xaar batay Ismaël Ismaïla Sarr franchement yaa ngi jël sa responsabilité pour ñun des na jox nga ben ben 60 pour pour man ses capacités deug deug dëgg propre pour man talent bi nek ci yow bi di nelaw ci yow génnegul à 90 et que un Ismaël Sarr très très très haut niveau. mais ku ñu téye fii Afrique du doy Sadio Mané du mu leen ko présenté gars yi Sadio Mané du ko présenté je pense que euh, Sadio Mané Iliman Ndiaye parle le même football par le même langage maanaam même làkk bi dañuy mën nañu déggoo quoi techniquement parlant ñaari joueur la yu xamante war nañu mën a football souvent dañuy wax ne football boo mënee football ñu boole ak ñeneen ñu mën a football da ngay pas aussi évident que ça parfois c' pas aussi évident par exemple boo jëlee le cas de Griezmann euh, Lionel Messi bu ñu nee Barcelone vite fait dans ta tête tu que bon dans ton imagination Griezmann ak ni mu mënee football ay ay ak football et on s'est vu que gis nañu du côté de Barcelone xam football des na au football ça n'a rien à voir avec les jeux mais normalement il ak football du côté de nga euh, mais tac, tac, la a tac tac tac la a instant yi ni nak à l'heure où l'on parle Algérie moo ngi defaru bu baax baax nan ay awaar ak keneen ak kenen wa Côte d'Ivoire dégg naa Zaha nee coupe bi du fi jógee ku nekkaa ngi dooleel sa équipe ñun nak li fi nek jamono bi mom lañu mëna wax donte man mom je damay continuer di insister euh, sur les business no ñi war ñew ñi wara renforcer c'est des vidéos yu xamante ma ngi ci préparer bu baax ba parce que duñu jëm ci coupe d'Afrique euh bu xamante ne dans peut-être un an la wax 2024 man instant sama réflexion déjà ma ngi ci lolu dèjà avant coupe du monde bi maa ngi woon si réflexion coupe d'Afrique bi bés ñu ko jëlé maa ngi coupe d'afrique bi stop man non lay noonu lay jobé mais pour man alors euh, liñu gis léegi ni ni xel dal na pour suñu aspect offensif manam connexion Sadio Mané Iliman Ndiaye dafa doon jur tak tak loolu mom mën luma gis la maintenant avoir euh, ki di euh, Aliou Cissé la lay def par rapport à ça xam donc euh, nak day ñëw Iliman Ndiaye boole ko beneen attaquant ma yàgg naa leen wax ni Iliman Ndiaye à côté d'un autre attaquant franchement c'est extraordinaire parce que day nekk benn neuf et bu xamante ne dina a def ay passe comme ni muy def du côté de Sefignatud à savoir que pour man entraîneur bu Sheffield United jàng na lu bëri si coupe du monde bi ak Iliman parce que dafa boo xoolee xooleen match yi parfois day nekk si si droite bi ça dire que il est capable de jouer sur le côté te souvent dañu wax ne muy man muy beneen chroniqueur muy observateur par rapport ak li xamante ne moom la ñu gisoon dañ naan Iliman Ndiaye sur un côté est ce am na fi vitesse boobu donte euh, mën na déclencher ay action maanaam na dribble dribble teggi xel est ce que voilà xam nga donc question boobu Iliman Ndiaye dalal na suñu xel comme quoi mën na jouer ci côté Ismaël Sarr Sadio Mané là est la question jël Iliman comme attaquant de pointe mu essayé ci kaw teg benn ismaël droite jël ki di euh, Sadio Mané à gauche est-ce que trio boobu la war ou bien de war a jël benn euh, Sadio Mané comme électron libre ou jël Iliman Ndiaye électron libre mettre Boulaye devant là est la question moi la question bobou sénégalais yi dañu né, Mohamed non on préfère même Iliman Ndiaye échelle si kaw bali pour mu jot ko sax di difficile mais connexion bi nga wax ne Iliman Ndiaye mën na am ak kii di Sadio Mané donc Iliman Ndiaye war na mën a échelle si kaw am question boobu am wax loolu ñeneen Mohamed li gis si temps yi euh, kii di euh, Iliman Ndiaye def ay passes sur sur un côté ça veut dire que mën na jouer euh, à droite ñeneen ñi ne ma Mohamed Sadio Mané aussi tamit jouer numéro 10 donc là est la question c'est à lui si nag de faire un choix man li ma jàpp waxoon naa leen ko fa le passe dans un 4-2-3-1 ça peut être le mën le bar, lu pour l'équipe nationale du Sénégal électron libre Sadio Mané euh, wala qui, disons Iliman Ndiaye électron libre je préfère Iliman Ndiaye électron libre Sadio Mané à gauche à droite qui dit Ismaël Sarr en attaque on va mettre Boulaye l'Ola loolu laa maintenant je commence à maa commencer à xalaat depuis may gis Iliman Ndiaye li mu mon seul point d'interrogation franchement jamono bi bu mu leen ko c'est plutôt Ismaïla Sarr doomu ndar bi doomu ndar bi li moom franchement ma dama doon wax ne équipe nationale du Sénégal Sadio bu fi newul bu fekkee am na kuréel téye équipe bi ci ay loxam moom à lui seul c'est Ismaïla Sarr parce que cinq joueurs bu xam ne à tout moment mën na andi danger mais franchement j'attends plus par exemple contre Angleterre il est passé totalement à côté contre Équateur on mais ba tey limay xaar réellement par exemple fukk jeunesse boobu mu am man sama rappel day bii mu dugal euh, Jean-François Guissard stade bu Saint-Etienne taxaw ni temps mi nekkee match tegg rek xaañ mu dugg sama rappel day match ren Europa League taxaw volé mu dugg sama rappel des match contre Arsenal des match contre Paris Saint-Germain Parc des Princes Rosen Park may seen dëkk bi seen seen dëkk de mais day match extraordinaire sama rappel du match contre Liverpool bi xamante ne invincible amul benn défaite mu ñëw def li mu fa def donc maa ngi fàttaliku ay match yu xamante ne Ismaïla Sarr moo ko def mais depuis temps yi nii voilà quoi am na lu des maanaam tey Ismaïla Sarr bu nekk si total nekk si dëgg dëgg ci confiance Sadio Mané man sama xel dal na par à ça Iliman Ndiaye nekk ci li mu nekk mais ku ñu Afrique fii doo doy ak waa Côte d'Ivoire amal Seko Fofana Algérie amal awar keneen ak keneen convoqué ku la mais suñu attaque bi day diis boobaa kañ leneen la wax boobaa dañuy wax na suñu défense bi voilà suñu défense bi wala suñu milieu bi leneen la ñuy mais xel day dal pour ci kaw c'est juste que boo tey Ismaïla Sarr Euh, Sadio Mané Iliman Ndiaye pas trois flèches nit ñu les courses il est plus dans la gestion il est plus temps fort ma un ma euh, combiné déclenche action profondeur il est plus ce jour là qui réfléchit moi je vois en lui un Benjamin, mondial football mondial franchement parce que passe

TV.